kon doxloo na la fañ waaye dekkal na ku dee lim naa ci lu mat juróom-ñaar ba juróom-ñett mais ginnaaw loolu nekkul temu waxtaan bi lu ma la junj la mën na nekk buntu waxtaan à géej gi day sàmbaraax nit nara a lab sëy naa saa génn yëkkati loxoom nii rek géej gi dal ñi war a teer teer mbaa ñi war a génn génn kon moom dekkal na ku dee ku daanu jàkk ji daanu ci kawam ñu di ko wax góor gu seexu ña dëkkoon gël tàppe moo daan yee xëdd jaar jamono yooyu entre 1970 et 80 kon nag euh, yaakaar naa ne digganteem ak Seydina Mohamed moom maam Limaam Mahdi alayhi salaatu salaam mooy daal yonent bi ba mu weexee dafa am jib ju ñuul moom bi mu ñuulee dafa am jib ju weex moo waral am na ku ñëwoon am tegtal yi ñëw di gëstu ñu ne ko boo demee da ngay fekk këram day uuf jàkka ji day janloog moom mu nekk dinga ko fekk muy forrantu di dajale waaye nag yaram ba day jib kooku ñëw gis mu janlook jàkka ji fekk na ko muy tànn lu mel ni ay mbalit nii di ko ber gis na tuuti jib ci loxo bi waaye mënul kan nak nag wàcceel sa loxo yégalal sa loxo bàyyi laay ci boppam moo xam li ko indi waaye moo moo jékki-jékki daa waa mas naa la gis jib ja tàmbalee fii ba fii ak loxo bi mu gis jib ja tampon nu boobu ba tamit mu ngoon fii ci omoplate bi ci mbagum càmmañam loolu nag sëtam bii ñu wax maam raan di ñeenteel bi xalifa mooy ki daan changé càngaayam périodiquement ci euh, ba bàmmeelam fii ci jàmbalaay jusqu'aux années cinquante quelque la ko tëj carrément ñu kule ko nii mais périodiquement da doon changé càngaayam mu mel ni léegi la fi tëdd tupp tupp yi comme ñaq nekk ci yaram wi suuf si def des zone multicolores comme guirlande yaa ngi dégg ak tempon nu boobu boobu loolu 1909 ba boori 1950 mu ngi foofu kon nag day am yu nit mënu koo fartaatu dajale ko jagleel kook nit ndax nit amul boobu pouvoir suñu romb mooy kii dogal ndax réew mii di senegal léegi ci añukaay bi laa naan suñ borom bi def na fi loo xam ne lu jafe la ndax keroog bi nga xam ne bii Cheikh Nabi Tidiane Chérif ci Algérie daje na ak maamam te bind ko wax ne dama koo gis jëhërën àndul ak i nelaw nee na mu jël kaalaam ñu tàllal ko ñu bokk toog waxtaan mu jël salaatu faatiha jox ba looloo waral tiijaan yi di wasifa suba ak ngoon fay làmpa yi malaan moomu ñu fay làmp yi toog nag nee nañu balaa ñu fay jóge yonent bi dina toog nii seex toog nii nangu nañ ko waaye làmbagoo ba daj ba ne yonent baa ngi nii làmbagoo ba ne seex a ngi nii waaye ci jàkk yëpp ci malaan yëpp gëm nañu ko ci xol ndax yuminul bil xëy bi da ngay gëm ci kump kii nag dana mën a bu ngeen gisee ci man jikko ak wax ak jëf juwuteeg moom du man moo waral li ma la limal sànq ci ay caractéristiques waaye moo waral tamit ba mu génnee àdduna géej gi ñetti fan ndox mi neex diggante fi ñu ko denc ba këram gi mu dëkkoon di nga paru mu ne géej gi di jooy rangooñ yu tey yu neex ku sëgg naan ku siggi waaru géex bu ko géej gi dee yooyu ñetti fan loolu tamit kan moo suukar géej gi naa Seydina Isaa nga xam ñu ne moo koy jullee te bu koy mu ngay bàyyi ko bayti mahmour kon loola it ñetti fan ñu di ko xaar pour ñëw démb bi ñuy xaar pour jullee yonent bi salaam xaar nañ ko ñetti fan pour Ababacar agsi waaw tey bi mu nee mën a démb man a tey mu ñëw génn àdduna ginnaaw bi mu tëddee feebar fukki fan ak ñett ci weeru kori euh, isaa ñëw jullee ko dugg saxaar Tiwaawan wàccee muy juróom-ñaari gaar di juróom-ñaari étape jóge kaw ndax Tiwaawan ak ngaa xam kaw ga kon kaw asamaan gi nga doon yaakaar ndekete lii la juróom-ñaari asamaan ndekete mooy juróom-ñaari gaar mu war daaba joo xam ne ji benn bët lay am muy le train à vapeur ak phare bi ci jébi mu ñëw ñu dogaale ko ak fas wu ñuy wax maanatulaay ndekete téere yi dañoo waxoon ne euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne fële di iraax fas wa Useynu duggoon dugg fa tamu faatoo ci dexu furaax ga ñu ne fas woowu mu ngi tudd yu may natu bés bu isaa nu mariama di dem di jullee ji mahdi mu ngi war ci fas woowu mu ñëw ñu teroo ko fas wu tudd maanatulaay jàkkeer sëriñ Ablaye Thiaw nag suñu xalifa bii nee na maanatu ak yu maynatu dafa mel ni ñam bi ak puloox sëp ak ñebbe ceeb ak maalo nee na benn la loolu la tubaab di wooye synonyme ñaari baat yu bokkul tey signifie la même chose kon loola tamit laayeen mënu koo tàndale du ba tax na kon yaakaar naa ne foofu tamit tontu naa ci laaj bi nga xam ne moom nga doon laaj ci digganteem ak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ndax buñ tëddandoo feebar fukki fan ak ñett démb ak tey génn àdduna kële di altine kii di àjjuma ndax guddi àjjuma la loolu neexul a tàndaate ki la wuutu toog ñetti fan soog laa wuutu démb Ababacar am lu mu wax te loolu mu wax Seydina Isa bi mu jullee bàyyam pare loolu wax dana ku fi ku fi ku fi baay indi woon sama dem na comme ni ko jiitu woon waaye ku fi yàlla indi woon nag yàllaa nga fi te du fi jóg noonu la Babacar waare saaba yi démb ba ñu dellu siwaat retrait spirituel almadi almadi gële nga xam ne mooy xuntama di grotte ba moom dane woon biñ ma robee ba xam nga territoire Makka ak Médine foofu mooy mooy ba léegi nag mu ne biñ ma fa robee ñaari guddi laa fa am ba ka ñetteel ñu transféré ma fii ci sawu jant nee na ma ñëw ci xunt mii di doju ngor wi def naa fi lu ëpp junniy at te guddi gu jot dinaa war àdduna seet ci ban xeet laay war a feeñ ci la tànn nag xeetu lébu ndax seen sababas set dañoo tàqoo ndox seen sababas laab doon set ak laab ndax ndox mooy tax nga laab loolu la gis ci ñoom ak yiw ga ndax bu ñu lay illustrer lébu bu soloo day solu sol colu goo xam ne gi tubarkàlla macha allah yaakaar naa ne ku gis ne tey jii Grand Serigne Dakar yi fi jaar yëpp ku ci solu kenn dul xalaajte loolu dafa am lu muy màndargaal colug lébu yi moo xam jaraa fii la ak ñoo ñëpp dërëgg kon yiw googu nga xam ne mag ñi tamit col googu lañ daan sol moo tax mu tànnoo foofu muy xeetu woo xam ne dañoo am dignité fële dafa amoon douze tribus ca Makka fii lébu gi am na douze tribus moom mu ngi bokk ci xaagaan am na xaagaan am na dorobe am na xonq bopp am na dëngaañ dégg nga boo leen limee day nekk douze tribus fii kon lébu ñoom ñoo la Quraysh doon ci arab moom la lébu doon fii ci ci der bu ñuul ci wolof kon euh, mu daan nag dem fii nga xam ne fa la nekkoon bi mu daal daan jóge yoof dem di fa toog di fa ziyaar di fa dellusi foofu moo waral tey jii ñu boole ko ci bu ñuy màggal woote bi mu bokk ci béréb yi nga xam ne yi dañ fay dem ziyaare ko mu tudd euh, kullu ziar bi nga xam ne bii mu ngi am ci képp ku dem màkkatal mu karam di nga dem dans la banlieue médinoise di nga dem Masjidul Hoba di nga dem Jabalu Haut di nga dem feneen di nga dem feneen ziare ji kon fii tamit macha allah xuntama ndingala jàmmalaay Cambérène Ngéjaga loolu yëpp ay bërëb la yoo xam ni ay bérébu ziar la ndax benn bu nekk ak taxawaay bi nga xam ne moom la fa am. waaw teen yooyu de bu dee bu ndiggala bi mu bàyyi koo gore ba jaar kër Tafsir Mbay Silla def fa juróom-ñeenti weer ba muy ñëw ànd ak maam Thierno Mbaye Sylla ma mu àndaloon Gàmbi ci Kéba Massaly bi ñu ñëwee fii dañoo gis benn guy mu ne kii de ci sama àndaale la guy gi mu ne ci àndaaleem la guy googu nag particularité malheureusement daanu na waaye nag ndegam diit mooy faatu ala rawati guy guy googu bu ngeen seetloo policier yi seen insigne bi ñu yor fii symbole bi mooy guy gii mooy guyug ndingala branche yi boo xoolee dañoo wàcc ni jëmuñu kaw contrairement ak yeneen baobab yi mu dox tuuti daldi wàqi bi mu wàqee tibb suuf si di jox góor gi na mbay si la muy ëmb ba yàgg ndox bal la mu nekk ñamal mu ñam mu nekk neex na mu daa mu nekk chifango muy ndox muy saafara lu baree baree bare ña fay dem tey jii ñu dul laayeen daanaka ñoo ëpp ñu gisoon ne nag ñun bi ñu nekk ndaw 40 ans ci ginnaaw jëm 45 an booba euh, ngollamar mi nekk foofu moom la ñuy lonk ci baat bi jënde ko faatiya profondeur u ndox mi nga di ko gis matul 2 mètres matu ko waaye du jeex inépuisable ba tey jii fi ñu toll ca jamono boobu ba nëgal si 1800 nangam kon boobu benn la ci puits miraculeux yi waaye bii nga xam ne nag moo nekk yoof jàmmalaay boobu dey am na benn sax bu mu masoon def te boobu mu ngi fii di dund ci boori géej dafa mel ni luy sebbattu comme boo defee nii sa tànk mu ngi ànd góor gi Momar Binta Sàmb naka mu ne nii ndox bal mu nekk ñamal mu ñam mu ne mu naak mu nekk xéewal goog laay ñu jël daggati bërigo yi di ko encercler di cay naan boobu nag mu jën a maay waaye nag bii moom moom ci boppam ci koriteem gu mujj en 1909 13 jours avant muy génn àdduna dafa jóge nga paru gi mu dëkkoon boobu quartier Layène gii ñu dëkk amagul ndax lii 1914 dafa jóge nga paru di jëm jàmmalaay muy fii taa xam mi nekk tey kon xam na li fi nar nekk ëllëg ndax dañ ko dañoo ñëw góor gi ma daawur moo koy bàkk di ko way buy dem jàmmalaay loolu dañ koy way baax li ci kër gi moo tax xalifa bu fi nekk booy julli ci jàmmalaay ñu di lay bàkk di lay way di tagg sa maam yaa rasulullaay moom nag démb xam na ne moom mooy mooy mooy mooy rasulullaay sallallahu moo waral bi ko góor gi ma daaw di ko way naan ki isaaxaala man fi xaaw di ko fa xawloo di way di way di dem ba yàgg mu ne ko ma daawur kiw la way ku doon moo kan fu mu ne góor gi delluwaat di way di mu ne ko ma daawuru kiw la wax ka mu doon moo kan fa mu ne Tafsir Ablaye Diallo mi mu àndaloon ca gore dib gorom mu may ko doomam taawam bu jigéen maanatulaay mu am ci doom ju góor Tafsir Babacar Diallo né en cent 1886 Tafsir Ablaye Diallo moomu moo nekk bàyyi lay yow lay wax ndax ant seydil awalin wa seydil axirin mu ne bu dëkkee maala Momadou kon fii la tawut ba maala Momadou moo tax bu ne bu ne laa ilaha illallah bu ko fekkee. toog danaan ni Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi day seede na mooma bu ko fekkee taxaw bu nee laa ilaha illallah ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi yàlla na kenn du ko duural am déet waaye mu ne waa ndax gis ngeen taa taax taaxum wurus mi moo tax bu ma déggee gaañu naan barrière wurus ba ca Màkka wax nañ dëgg moom fii nee na ndax gis ngeen euh, taaxum wurus mi ñu nekk ko bàyyi laay ñun gisuñu gisuñu dara mu ne xalaas en gàtt bu gis-gis waa xanaa gis ngeen teen ba bii mu ngi wax teen bi ñu nekk ko bàyyi gisuñu fi dara mu ne xalaas en gàtt bu gis ndaxam moos ka ci taaxu muris mi naan ci teen ba bii ca naal loolu bàyyi laay ko wax ñun liñ ci nettali ku ko fekkee keroog moo ko waxte boobu ci ndaw ñi la bokk ñu naan dàq leen xale yi mu ne bàyyi leen xale yi xale boobu moo nekk mag moo ñu ko nettali en 1978 kon muy lu wér cëng du dëgg teen boobu nag keroog biñ ko dencee daf bi mu tàbbee ci suuf la ndox mi bal la mel na mag nag góor googu ma lay wax ne moo fekk loolu wax na ma ne dafa am ci magu magu bàyyi lay koo xam ne kii dana jibril day wàcce na ci kaaba ga duut na baaram ci suuf baaram baa ngay ñëw ak gudd mu ngi ñëw yàgg mu ne ëgsi na ëgsi na ji ak mbi ndox bi ball fii benn la looloo waral bu nekk vase communicant ba tax bu aj màkka jotee bu julliti yàlla yi nekkee arafaat ak mun na ndox mi day gent du am fii dara du xelli pendant trois à quatre jours ku ci ravitaayewul à l'avance fan yooyu mënoo fexe ba fekk fu ndox et ça c'est vérifiable bu leen neexee bu waxtu woo jotee ngeen jël seen caméra demal seen bopp di ngeen gis li ma leen wax waaye lu dul loolu ndox mi du dey te ci booru géej la nekk te saful xorom moom ngeen naan léegi ndax man moom lay naan du ma naan ndoxum robine du ma naan kireen du ma naan Evian du ma naan lenn loolu lay naan waaw yaa ngi dégg kon nag euh, loolu tamit yaakaar naa ne dina doy ci relation mystique entre Seydina Mohamed ak Seydina Maam Limaamu Mahdi salaam ndax kenn ki la der bi dafa weexoon rek te ñuulaat weex ak ñuul nag mooy màndargam kaaba ga buñ ko armalalee dañ koy def bu weex bi jël bu ñuul teg ci kawam moo tax kër bàyyi laay ñuy teg kaalu gu ñuul gi teg bu weex bi ci kawam bu ñuul bi bu weex bi lañuy ñuy jiital teg bu ñuul bi ci kawam ci kaw bu weex bi je suis l'alpha et l'oméga boo xoolee kaala gu ñuul ci Seydina Isa moo yor la forme alpha astafurlah la forme oméga marque oméga yu montre sax da nga koy gis noonu weex gu weex gi nag moom mooy alpha drogue kon dafa symboliser la peau blanche ak la peau noire moo tax ku fi toog def noonu Seyna Mandione a nga ne kàllu gu ñuul geeg gu weex gi Baye Seydi caw troisième xalif maam raana ngi nii kàllu gu ñuul gu weex gi xalifatul muslimin Seydina Baye Abdoulaye Thiaw kazalika bu ñu génnee dans les cérémonies noonu la ñuy mel waaw kon yaakaar naa ne boobu question tamit sëñ bi euh, liñ ci dégg war nañ koo mën a jariñoo waaw appel bi day mooy woote bi ma la wax ne moom la woote woon ca bi gàddaay gi amee junniy at ak ñetti téeméeri at ak benn at maanaam mille trois cent un tey jii ñu ngi ci mille quatre cent quarante deux kon ñu ngi dëgmal cent quarante unième anniversaire lu appel bi ju euh, téeméeri at ñeent fukki at ak benn bi mu taxawee ne yàlla mu yónni ba léegi ñu di koy baamtu nag at mu jot waaye mu ngi tàmbalee ci centenaire bi bi mu amee cent ans la ñu tàmbali di def appel ci centenaire lu jiitu loolu Korité rek lañ fi daan def mool fi bay bàyyi ak tabaski ak xanaa ñaanal xalifa yi fi yi fi yi fi yi fi génn àdduna te tàmbalee ko ci seen waajur seen maam maam bay lay ñu koy defal ñaan at mu jot loolu ci xeexu diina ji la bokk waaye bi ñu demee ak ziar général ñëw nag ba à partir de 1978 gouvernement bi fi nekkoon di Senghor ak Abdou Diouf son premier ministre ne dañoo bëgg kër diine bu ne tànn benn bés muy officiel bu ko defee gouvernement bi ci la la war a yónnee ay ndaw pour ñu wàññi xew yu ndaw yi ci la Touba jël màggal Tiwaawan jël gàmmu Njaasaan ak Canaba jël gàmmu ba ci suñu mbokki tukulóor yi waa kër bàyyi lay nag kon nag dañuy fàttaliku woote ba te à partir de téeméeri at bi mu am 1401 correspondre ak le 5 juin 1981 ñu def ko centenaire kilifa diine yi di fa ñëw looloo waral na ñu di ko perpétuer chaque année ba tey jii mu toll fii loolu kon mooy mbirum woote bi dañu bañ bu ëllëgee kenn dégg na ko ah témoignage moom bari na ndax Euh, moom bi mu wootee ne yàllaa ma yónni moom kenn cundum la ndax mbooloo dajalewuñu ba yàgg rek comme ñu ne nañ tànn ci mbooloo mu ilimaan waay diw yaay jiite déedéet moom moo jógal boppam waxal boppam la wax muy bom kenn cundum soxnaam suñu wax maam Fatim Mbengue nga jur Isaa gëm Mamar Bint Samb gëm maam Thierno Sarr Thiop ma leen di moom la àndaloon gëm extra extra extra loola nag moo dëgtu ba waalo gàddaay def trois cent kilomètres dox ñëw góor gi yaat ma yaat ma aan jóob yaat ma jóob moo jóge foofa ànd ak soxnaam ak doomam ju nuy wax maam Siboori Jóob ñoo ñu jur Baay Malick Jóob ak Libaas Jóob deb yi nekkoon Cambérène ñu jox fële ci ginnaaw ngiic boo rombee poqataan yaa ngi dégg foofu lañu départ mu ñu muy Nayre trois cent kilomètres ñëw gëm ñii bàyyi koo gànjool comme Tafsir Ndike Wadd Maam Matar Fall mi bokk ak Cheikh Ibra Fall benn baay Cheikh Ibra Fall jëwriñ Sëñ Touba Amadou Fall leen jur Amadou Fall Atman Fall moo leen jur Maam Matar Fall ñëw ànd ak jigéenam bu ñuy wax biti loxo jox ko góor ki Thierno Sarr Thiom mu am ci doom ju ñuy wax Ablaye Góota biti Thiom kon gànjool googu ñëw nañu paal maam Alaaji Mbay maam Moussa Mbay paal googu lañu jóge foofu Alaaji Rawaan dëkk te cosaanoowu fa waaye waa ngóomeen ñoo ko fa dalal boo fa demee jamono bii may wax yow am na benn patriarche bu am cent dix-neuf ans mu ngi foofu toog dem naa ba fekk fa moo waral xeeru paal woowu bi maam Alaaji ñëwee gëm bay mu nekkoon loo xam ne lii ay genre xërëm la mu ñëw toj xeer woowu ñu di ko wax euh, maam Kantar moom lañ daan protéger dëkk bi moo waral kajoor fàq góor gi ma yónni loo njàmbur Cheikh Makhtar loo njàmbur boo demee ci yoonu kokki ah góor gi ab Ablaye Gueye ak Jibril gay foofu la ñu bàyyi ko yaa ngi dégg nga jàll jolof pete maamu Abdourahmane Sow ancien ministre ñooñu itam foofu la ñu bàyyi ko dox ñëw nga boo ñëwee di di bay béy ngumba ngewul góor gi ma yónni loo foofu la doxee presque deux cent kilomètres ñëw moom mooy maamu Ilimaan Libaas Loo bi nekk fii ci Cambérène waaye foofu la góor gi ma dikk mbeng départ moom ca mbengeen Bawor maam Gaye Diop départ Ndanda yaa ngi dégg nga jàll saalum jàll Sine jàll cees góor gi Ceem Sawaare nga ñëw jàll dans le Ndiombato en Gambie nga ñëw jàll fii ci tund jandeer wi man sama maam Tafsir Mor Ndiaye ségal googu la jóge ci yoonu Morala yaa ngi dégg te booba mbooloo mi ko topp bari na waaye dégg na woote suñ yàlla dawal yàlla ñi bàyyi koo ba góor gi sëñ Mamour Jaxate bàyyi koo foofu ci ngaa xam mooy borom Beyti Mahmour mu ñëw ñu nekk dellu ndax keroog njool may war ndekete moom mooy noor kii boofal Seydina Issa Rouhou Laye kon fukki penc yeeg ñaar ci lébu gi penc mu nekk mën naa laa jox détails yu mag ma fa jóge wakaam noonu maar Dramé Ngor ñoo ñëpp dañoo ñëwoon nga dem Bargny maam Alsaan Wadd nga dem Tëngéej Tafsir Ibrahima Mbeng ñoo ñëpp lim bi Mor Wadd ci Pout kon mën naa ka lim lim bu takkoo takkoo takku kenn ku nekk ma la fu mu jógee kon loolu bokk na ci ak ki nga xam ne ki moo ilifoon Dakar wax naa ak tafsir mbay si la nekk imam di atte ci charia 14 ans kooku xam nga ne xam na l'islam waaye tamit dafa ñëw gëm bay laay waa ndakaaru nekk kon ginnaaw da ngaa topp ci limaamu bàyyil suñu jàkk loolu tax ñu détrôné ko mun leen seen jàkk ngoog man dem naa nangu dogalub suñu borom bi yooyu jaar na fi bu dee ci firnde waaye maam Alaaji Malick ànd na ak góor gi euh, sëñ Amar Cissé Pire ñu ñëw fii ci zawiya ba euh, ñu ñu ñu xamal leen ne que ne këram jommi na ca Tiwaawan maanaam këram lakk na mu ne dama leen ma ci bàyyi jullit ñi loolu Amar Cissé Pire moo ko nettali Baye Seydi Thiaw Mamran ak sëñ Ablaye bi nga xam ne bii doomam ju nu mayoon Baye Seydi caw mu am ci taawam bi Seynabou Laye mu génn àdduna ci prix ñu denc ko lii may wax Moustapha Cissé man na ko firndeel mu nekk demal leen ma ci bàyyi jullit ñi ñoom bi ñu laaj dugg saxaar bay dellu fekk na bàyyi laay yebal na saaba yi ñoddal leen suuf ñu dem sàqataat defaraat lépp Cheikh Ahmadou Bamba bi mu jógee jeewal jëm ndar ñu war ko indi ndakaaru la bàyyi laay woo euh, góor gi mësee ñang ci Cambérène moo jur duut ñang mi nekkoon chef de village yu Cambérène jur mberi ñang ak yaa faati ñang yaay soxna laali góor gi ma seen ñang moom la boole nañ ko ak maam sàmba Sarr mi nga xam ne maam la ci yandiku Jóob mu ngi fii ci kàmbari boo ne fekk fa ak góor gi yoro ndee la di ci Serigne Ablaye Thiaw ñooñu ba ñuy juróom-ñaar ñoo dem mun leen mu nga jëm kër Ibra Bint Gueye Mbeng foofu la sëñ Tuubaa ñoom ñoo ko teeru ay bagaasam ba mu def fi ay fan ñetti fan ñu yóbbul ko juróom-ñaari weeni banaana ak genn wàll muy yóbbalam ci juróom-ñaari at ak genn waal yi mu def ci saxaar ga ba muy ñëw ñoo ko teeruwaat ba mu duggaat saxaar ñoo ko yabaat loolu nag ci wàllu relation wàcce na ba ci sëñ Fàllu Mbàkke keroog bi Seydina Issa Rohou Laye génne àdduna en 49 mu ànd ak ñëw yabal fi mu Ka moom ci boppam ñëw na jaale si ne ku dib murit demal Cambérène jaale ndax ku fa taxaw sa yaram aramal na safa Moussa Ka ñëw daal di fay way ay béyt 63 vers mu ngi fii ci biir man naa la kaawan waaye mu ngi naan si gindi gaale njàmme di jaale aboori jaale najlu limaamu yéen gaa yi te ngeen a genta Isaa dib janta dem na bihaami ndar ba ndakaaroo siin ak jiwaaloo ku fi aji maandoo xam nga limaamu fii ñëpp fi daan boof mel ni xajum njoof te àdduna soof bi xitaami yéen gaa yi Isaa tey ngeen a gent Isaa di jant dem na bi xaami yooyu vers la def moom kii di sëñ Moussa Ka mu mag moom waaye ay weer lañ ci teg ginaa bi seen Isaa génne àdduna sëñ Abdou Karim mu mag génn àdduna délégation laayeen bi dem ñetti jigéen ñoo leen rax ñu dugg saxaar Seydina Babacar moo ko jiite ñu dem fanaan Touba keroog Seydina Babacar siis biñ ko tegal moom tamit nee na fii ma toog sama boroom xamal na ma tey ku fi taxaw sa yaram aramal na safara yaa ngi dëgg loola moo jur sëriñ fàllu nekk dama bëgg nga may ma sama nganuk bopp Seydina Babacar delluwaat na fa nganam nganuk boppam ci benn auto particulier mu ngi ànd ak yaa sukkay njaay ak yaa mati baani yaayu imaam ratib bii tey ak baa Ablaye Guèye Bamar def na fa ñetti fan sëñ fàllu ganale leen ba muy ñëw mu nekk ko moo yoroon tey caabi àjjana jox la ko waaye nag der bii de lu ma am ci laa ko amee der boobu mu doon ne ci baayam mu ngi fii ci Yoff kon duggante boobu wàcce na ba ci sëñ Abdou Lahad am soxnaam suñuy wax Kiné mbay am rakkam ju ci topp ju ñuy wax Nogay mbay sëñ Abdou Lahad jël Kiné mbay Nogay mbay marqué xalifa bii di sëñ Ablaye Thiaw mu am ci doom tudde ko sëñ Abdou Lahad sama soxna la may njëkke rëgg kon foofu tamit ak rabboo ak ak jaxasoo am na fi ma gis nag ne ñaar moo mën a am ndax wala àq wala kaana mu ran ku waxul dëgg wax la ci ginnaaw dëgg gaa yi yàlla yooyu nga xam ne gaa yi yàlla piir lañu lii bàyyi laay wax te contemporain ak ñoom bu fekkoon ne du dëgg kon dinañ am fulla ju toll nii xam ne du lu dëgg seytaane la ñu moytu ko moytuloo ko seen njaboot wax ka mbaa ñu bind ko yàqal ka te defuñu ko te bàyyi laay def fee ba neuf. génn àdduna neuf doom ji yonte yàlla Isaa wuutu ko nekkandoo fi ak mag ñooñu ba quatorze euh, kii génn àdduna borom borom bukkunte Njaasaan ba 17 Cheikh Sadou bu génn àdduna ba 22 Alaaji Malick génn àdduna même année maam Ablaye Niass génn àdduna moo jur maam Khalifa Niass ci lew na ak Baye Niass ca Medina Baye ñoom ñaar ñoo bokk année de disparition 1922 ba 27. Serigne tubaa génn àdduna kon ils sont contemporains fekk nañ ko fi dégg nañ li mu wax bàyyi na fi kuutaayam Isaa nekkandoon ak ñoom ay at soo génn àdduna loolu nag xéewal la goo xam ne gii suñu borom ba moo ko yekkiwal réew mii di Sénégal ba tax na dañ koo war a sant yàlla ñun ñëpp au lieu kon ñuy boddikante ñun jullit ñi nañu booloo nekk benn taxam na suñu borom bi mooy def lu ko soob sa juróomi baaraam yi tolloowuñu benn bu nekk ak la muy liggéey waaye ci benn loxo bi la sax du dëgg kon rafetoo googu moo waral maam raan daan taal otoom guddi di dem ba jaag saaw di seeti Alaaji Abdu moo waral Alaaji Abdu masaan ñëw fii yoof ci ay taalibeem balaa muy àgg ci ñoom jaar ci bàyyi seedi caw mbaa maam nuyu ko ndax nee na kër boo fi dugg da nga jaar ci borom kër ga looloo waral bàyyi lay ne sarxa sarxa yaat yi xarba xarba yaat yi ba yàgg mu ne xiddi leen sàqet yi xajal gan ñi muy parcelle gi ñu nekk tey unité 1 ba 26 364 hectares ñetteel bi xalifa moo ko may Senghor salaaju ko ci bu tuut moo tax tey ñëpp a ngi fi Saalum Saalum Bawol Bawol Kajoor Kajoor Casamance Tamba ñëpp a ngi fii ci diggante Yoff ak Cambérène suuf sii mu tudd Parcelles Assainies de Cambérène moo njëkk am ci Sénégal Parcelles Assainies béréb suuf suñu sellal suñu laabal bi Parcelles Assainies de Cambérène moo nekk ci kayit yi kon nag loolu la yàlla dogal ndax bàyyi laay danoon lépp dina mu fekk ñëpp dina ñëw ñu nekk ndax la mu ne fii moo la soowoo bi moo tax raj-raj ak coowi Ndakaaru Baye laay wax na ko démb te lii ma lay wax góor ga fekk ba ka Baye laay di wax bisu korité ba mu jubloo penku ne leen en na feela fan ñu nekk feela penku mu gees wëlbatikuwaat ne leen feela fan ñu nekk fii moo la sow mu ne déedéet tur ba des na de baamtuwaat ke dellu si ne fii moo la sowoo am caatam nag mu jigéen mi fi génn àdduna octobre 1983 di soxna Ummi Laay man moom ma wax lu tur premier juillet 1978 mu ne sama baay nee na marchandise bi ndegam mu ngi xaj ci yi bareegul yaakaar naa ne ku ne gis na marchandise bi ci trottoir yi ah? ba yàgg mu ne alal jépp dina mujj nekk suuf tey jii gis ngeen suuf si coowal suuf rek ngeen dégg le foncier bâtiment yi alal jépp paa ngi nekk ci suuf fa la ñuy investir mu ne bu keroogee nit dina yor xaalisam yendóor ba jant sa du am lu gis lu mu jënd loolu ñu ngi koy dund mu ne waaye bu keroogee fu waaye bëggul dee na fa jóg fu waay bëggul dee na fa jóg gis ngeen ñii dee ci àll ak xale yi di dem mu ne waaye lu waay bëggul dee fekk la ca naka ba booy def lenn te bëggoo dekk nee ba ko lu tax mu ne al mawtu laa yaati ilaa baxtatan dee du ñëw ndare ci mbetteel waaw c'est différents successeurs de xam naa pour bañ jël temps yonte yàlla Isaa mi ma la wax léegi moo ko wutu 9 ba 49 ñeent fukki at moom mii moo doon digaale ak tubaab bi moom mii bi mbas mi amee muy peste la peste de 1914 boobu Cambérène gu njëkk la ci ndingal lañ nekk moom moom bu jëloon des mesures conservatoires pour l'épidémie ber ñi feebar ber feebarul ber ñi nga xam ne ils sont en convalescence ut ñu leen di toggal sur recommandation des tubaab loolu zaahir bi la mu toxal dëkk bi yóbbu ko fii Cambérène nekk tey kii moo de moom la ñu invité woon à l' exposition de Vincennes en 1931 en France kii ba mu dellusee ci exposition de Vincennes ba ci la bind une lettre à Blaise Diagne le 7 juin 1932 ne ko dañoo bëgg ñu noircir les postes de police gendarmerie service d'hygiène nañ ko jox autochtone yi mooy doomi réew mi. mu dolli ci ne nañu wut de nañu wut des routes carrossables ngir mbay mi bu ñoree ñu mën ko indi ci réew taax yi nañu wàññi impôts yi la baisse des impôts loolu ci lettre boobu la nekk nañu augmenter le prix de l'arachide un problème toujours d'actualité baisse impôt augmenter prix arachide 1932 Seydina Issa bind na ko xam nga inauguré jumaam ji 1937 ci Cambérène ak tali bi demoon ba Altub Yaraax loolu yëpp moo Cambérène la woon dégg nga kii bi ñu transformé la parc de Hann en parc zoologique en 1935 ci la fi panthère bi rëccoon nekk fii ci àll bi ak njabootam demoon doon taxane matt gis ko mu mel ni benn xaj bu boof panthère bi yëngatuwul tubaab yi di wëruñ tubaab bu ñuy wax merlin nekk koo xam ne kii jamkat bu aay la ak ki mu àndal bañ demee ba gis panthère bi panthère bi tëfa tëb songo ko ki mu àndal nekk tireur d'élite moo ko séparé ak moom moo ko jam te ndaxam bi njaboot Seydina Issa ñëwee foofu deful lenn drogue kon Seydina Issa Rouhou Laye bi moo def son dernier voyage à Saint-Louis lors du départ du Sénégal de Wiltor mi ñu tuddee stade Wiltor Lamine Gueye invité ko fa mu dem Ndar il a par autorail ba muy dem bi muy ñëw mu ngi ñëwee otoom ñaari oto la amoon Plymouth ak Lando moo génn àdduna 1949 wax naa la sànq ci ay mujza ci moom ku ko wuutu Seydina Mandione borom portale bi xool ka ni mu portale woo ci sàqet yi ak néegi ñax yi waaye xoolal tenue bi mu sol ak le mariage des couleur la netteté de la photo vers les années cinquante kii mooy Seydina Mandione mooy borom picc mi 1950 mooy premier Koritém après 49. ci la picc mi ñëw foofu ci bisub korité dal ci mbaggum euh, Ablaye Diouf ñu koy wooye Serigne Saf mooy papp Baye Mandione mbër moo tax mu tudde Baye Mandione kii mbër moomu picc moomu dal ci moom def na fi juróomi fan du lekk te du naan ñaari couleur la am noir à mu ngi am fukki dunq ak ñaar ñaar yi ci gën a gudd soixante-dix centimètres la muy picc mu yéeme ndekete ci baatin Isaa mii moo ñëwaatoon moo tax dañ koo rob comme ni ñu robi nit Seydina Mandione mii nag moo fi nekk 1949 ba 1971 du dëgg waaye moom mii tamit à 28 ans moo amoon mat gu toll nii waajuram maam li maamu génn na àdduna Seydina Issa mu nga ngaa xam mu am 28 ans lébu yi ne nañ suul limaamu mu ne ku laal sama baay te Issa ñëwul ma tàqale sa bopp ak sa baat yor jaasi loolu Seydina Omar defoon na ko démb ku laal Rasul laay te Babacar ñëwul ma tàqale sa bopp ak sa baat moo tax la woon démb daa amaat tey ci séquence boo bëgg moom bii moo amoon mat googu àllaaj l'âge de vingt-huit ans bi mu fi jógee nag fekk na lu jiitu mu fiy jógee rakkam di naa Babacar jur Mamadou Lamine mii muuru ak maam libaas mii sol mi tey jiite it kookooy seen bàyyi kooku génn na àdduna 1966 ndax dafa ne sëram maam ummi mu nekk fas yéenewu maa toog ginnaaw ma njoon ummi mu nekk laay mu nekk fas yéene maa toog ginnaaw ma bés ni tey dugg naa sukaraat kooku moo génn àdduna moo tax kii bi muy génn àdduna cinq ans plus tard en 1971 doomam ju ñuy wax Baye Seydi Ceko tudde ko yonent Yàlla Saami kooku moo toog di xalifa nekk premier set bu toog xalifa en 1971 toogandoo fi ak baayam ci këru diine yi moo tax mu daan wax Baye Abdoul Ahad Baye Abdou Aziz te ndaxam il est né en 14 maguñu ko. waaye mu jox leen cëru bàyyi ndax bàyyi doom la ñu toogee moom mu toogee set dëgg Baye Seydi Thiaw moomu nag moo def la tournée de 1982 mu nekk une tournée historique mu dem Tivaouane Diack Saaw dem Canaba ci sëñ Alpha Seck dem ci Sidi Lamine Kunta ci ci Kële Ndiassane ñëw ci sëñ Abdoulahad Touba Falamangan nga fekk boo maa ngi nekk chef d' agence de la BIAO de Mbacké maa leen teeru yóbbu leen les photos sont là pour en illustrer naa leen ko jox ngeen jël ko en mu illustrer lii ma leen di wax ndax lu may wax lu nekk damay bëgg mu nekk duut baaraam kooku moo fi toog ba le 13 octobre 1987 maam raan rakkam ji wuutu ko di doomi njóobeen ndax Fatlaay Jóob ko jur ak Baye Mandione Fatlaay Jóob Maali Jóob ko jur Maali Jóob Jala ko jur jali bëkk kon bu ko neexoon sa falu Serigne Dakar mu di ab waa yëmbal kële moom leen wax léegi magam di ab waa tëngeej góor gi sàmba Siis mooy maama moo jur asu siis asu siis laay moo jur Baye Seydi Thiaw kii fi toog nag mooy xalifatul muslimin di juróomeelu xalifa mooy Seydina El Hadj Abdoulaye moom la maamam tuddoon ne cuuj sama cuuj ba ca Bawol ba yàgg mu naan drapeau bi ci nekk Kumba Ngoy ba yàgg mu naan Abdoulaye ma ci Abdoulaye bu tolloo buntu nekk ma siiw ndekete moo am la mission de propager l'appel moo am cette mission là nekk jëwriñu Seyna Mandione durant tout son magistère nekk jëwriñu kuutaayam di Baye Seydi Thiaw di magam de 1987 à de 1971 à 87 continué nekk jëwru jëwruñu maam Alassane Laye de 87 à 2001 mu toog avril 2001 ñetti fan wax ak mbooloo mi ne leen wax jeex na jëf a des kon moom pendant près de cinquante ans wax na ba moo tax ba Seyna Issa dem Ndar fekk na mu nekk militaire au camp Dakhar Bango de Saint-Louis moom ak Abdoulaye Wade mi ancien président ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bu Daaru Xuddoos seen portele ñoom ñett tamit mën naa la kaawan ñu ñett ñu ànd noonu moo waral sëriñ Ablaye Thiaw tudd doom Gaynde Fatma muy sëñ Cheikh Mbacke mi tey ak dëgg Ablaye Wade rek keroog bi muy dem quartier mook sëriñ Ablaye Thiaw mii ñu ngi leen ñaanale fii ci Medina Kër Seyna Issa ci tëleen jekku ndax dañoo génn oto bi bay waaji dem tuuti ab Ablaye Wade ñëw ànd ak magam Moustapha Wade ñu ne ah Ablaye Wade ngi noonu ak Moustapha Wade mu ne waaw damaa dégg doomu sëriñ bi day dem quartier ma bëgg ñëw pour ànd ak moom Seydina saa téye seen loxo ne leen lu ngeen bëgg ma ñaanal leen sëriñ Ablaye Thiaw ne damaa bëgg ma ñaan nga ñaanal ma ma màgg ba siiwal sama woote maam bi kon loolu dem am na Ablaye Wade nag damaa bëgg nga ñaanal ma ma dem tugal ba mel ni tubaab yaakaar naa dem na tugal ndax am na kër Versailles mel ni tubaab am na jabar tubaab ñaari Abdoulaye yooyu keroog lañ leen ñaanal ba ñu dem quartier sëñ Ablaye Thion wax ma ci làmmiñu boppam ne ma biñ ma affecté Kaolack ma jóge Dakar Bango Ablaye Wade dafa ñaan affectation fekk ma foofu loolu it taarix la histoire la sëriñ Ablaye Thiaw ngi yoof loolu moo ma ko nettalee ci géej waaye ci këram kon ci juróomi xalifa yi ci gàttal loolu laa la ci mën a tënkal mawlid nag cosaanoowul ci kër gi ndax xam nga alaaji Malick fii ci Sénégal moom la ñu gën a astanal mawlid waaye sëñ Mamour jaxate ma nekkoon ngaa xam à neuf kilomètres de Tivaouane moom tamit dafa tàmbali woon di gàmmu téye ko ak njabootam di ca rey ginaar nit ñi dem boole ko ak Seydina Issa Rouhou mu ñëw mu laaj ko mu tontu ko mu nekk dootu laaj ci doon rey mu ne ginaar mu nekk dinaa la jox nga xar loolaa indi mawlu dem foofa ba Serigne Ablaye Thiaw mii tey l'actuel xalif di dem di ko ko firil ba far ñu samp ko fii ci Cambérène benn guddi sax dafa xaaj guddi gi tàmbalee ngaa xam eggalee Cambérène soog a dellu ngaa xam 1959 ñuy def gàmmu fii ci Cambérène Mamadou Dia ancien ministre chef du gouvernement sous ngor di ci ñëw ci mawlid bi Seydou Nourou Tall kazalika moom tamit daan ñëw di gàmmu si fii ci Cambérène Modibo Keïta président de la fédération du Mali daan ñëw fii moom tamit fi ci jumaa ak ak gàmmu loolu am na cinquante neuf ñu dem soixante ba soixante quelque après la gàmmu gi ñëw nekk yoof du dëgg ndax cosaanoowu fi comme ni nodd cosaanoowul ci lislaam démb xam ngeen ne lislaam bi am na fukki at ak ñett ci màkk dem nañu Medinatul Munawwara bilaal ba muy nodd keroog bi ñu tabaxee jumaa ja la mu yéeg nodd nodd mu ngi tàmbalee ci yoo ci laayeen 1937 bi ñu inauguré jumaay Cambérène waaye dañ daan woote rek julleey julleey ñu ngi julli dey ñu ngi julli dey waaye bi waxtu jotee ñuy tabax jumaa ji 1937 ci la noddil tàmbali ci ci ci bàyyi laay ba mu jógee kër Thierno Mbaye Sylla dëgg tukulóor yi mu ne lu ñu def ne ñu ne tey la Mawlidu Rasuul mu ne xalaas suñu borom xarala ndax am bu ñu xamoon ne mën a kon bi waxtu yu jotee it lañu ñu commencé fii def mawlid ndax ki tax ñuy mawlid moo tëdd fii di baagante penku ak sawu ci ñu ko suñu borom ba xamal ndax moo moom fële moom moom fii mooy seydil awalina di seydil aaxirina waggi nag conjonction de cordination la e dafa weexoon dafa ñuul jant bi fii la fenke waaye fii lay sowe du rëgg moom mooy chamsu sumuus ndax mooy jantub jant yi kook mooy seydina limaam alayhi salaatu wasalaam perspective yi ak projet waaw xam nga président Macky salde dafa wax ne day def li ñuy wax modernisation des cités religieuses ñun nag am na ñuy béréb ndax am nañu xuntuma faleer ga nekkoon ca Ngor au moins cinq à six hectares mu nga fa am na luñ fa nësal waaye ndingale gii tamit jàkka jooju ñu clôturer mën nañ koo méngale ak masjidul Quba ndax mooy jàkka ji yonent bi jëkk a def foofale ca Medina kon fii bi mu ko sancee daf ko tuddee kem Medine kon nag mooy jàkkam ju jëkk ji kon foofu am nañ fa projet pour def fa juma jàkka joo xam ne ji bu maar détail ak yeneen comme ay centre de documentation waaye fii tamit di yoof fi maam Baye laay tëdd bërëb bu toll nii bariwul ci Sénégal am na luñ fa nësal loo xam ne di ndax commencé na xat kon la capacité d'accueil bu mbooloo mi xat na bésub Korité ak bésub appel ak bésub mawlud mawlud kon nag war nañ ko yëkkati en hauteur ceinturé ko comme Kaaba ga loolu liggéey bi maquette bi par na chiffré nañ ko xanaa kay fexe ba mu jot ci président jot ci jéem ko réaliser ñu nit ñu am lu mel noonu bëgg nañ ko waaye Malika tamit Ngédiaga yaakaar naa ne président jox na la communauté layène au tekk ci loxo xalifa bii fi toog Escalité 45 hectares ñu ngi ci waxtaan am na ay projet également yu ñu fa nësër kon am naa yaakaar ne loolu bokk na ci ay perspective am na yeneen waaye xam naa lépp yemale ko ci benn jataay amaana du yomb waaye loolu lañ ci mën a junj daal ci waxtu wi.